ساويني اليوم يا واب خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم commission sociale Touba ca kanam dafa nekk loo xam ne organe interne la ci biir su Touba ca kanam organe interne comment du loo xam ne ñoom dañuy jekk-jekk rek ne nañ ñu budgétiser ñu budgétiser mais ñoom dañu naan Touba ca kanam su commission sociale bi li ñu bëgg mooy mu naat beneen jaayante ci suñu biir jaayante bi mooy tey bu fekkee ne dama cotiser sama 1000 francs le mois ñoom bu ñu amee leneen lu ñuy def aussi dañuy laajaat ñun mbokki taalibe ñu génn waat addi addiya jox leen addiya jooju ñu leen di jox nag ci la ñuy def li nga xam ne mooy jëm ci social ci la ñuy faj ci la ñuy dimbale ci koor gi ci la ñuy dimbale ci tabaski bi ci la ñuy dimbale dimbale dimbale ci li nga xam ne moom la ñuy def loolu nag sëriñ bii nekk sama ginnaaw di sëriñ Mourtada Mbacké moom sëriñ Abdou Fata moom sëriñ Fallilou mooy président commission bi mais tey exécutif ñëpp il waroon a nekk le président ah le vice président ah moral aussi ñëpp il faut waroon a nekk sëñ Abibu ak sëñ Abdou Lahat sëñ Abibu mais dañu am teq waaye teewul ñoo ngi ànd ak la vice présidente maam ñaaña ay dara moom mooy ki nga xam ne moo représenté exécutif bu Touba ci kanam bi yëpp. Euh, ci kaw loolu nag li ñuy def rek mooy dañuy jox caabi ji Serigne Mourtada bu ñu demee ba toll ci bu jox leen oto bi ñoom madame Ndiaye oto bi ngeen ñu waxoon ne dañ leen ko wutal mi ngi nii oto bi nag. li ci nekk mooy am na ay chaise comme ni nga ñu ko waxee woon ndax moom aussi daf ñu joxoon spécification euh, bi mu ne ñu woon daf bëggoon fu am ay chaise am foo xam ne day am rampe seen chaise spéciale yi am mën a yëg ci biir ak yooyu wutal nañ leen oto bi am na rampe am na chaise am na espace boo xam ne seen bagage yi aussi da ngeen ko ci mën a dugal tubaa ci kanam it jekk na ba tey di ànd ak yéen di liggéey parce que tubaa ci kanam dara tax koo jóg lu dul Touba lépp loo xam ne nekk na ci biir Touba ak structure bu mu mën a doon Touba ci kanam tàllal na ko loxo moo xam hôpital la moo xam police la moo xam sapeur la moo xam moo xam waaye ndax yéen nekkalu leen fi lu dul askan wi te ñu nit askan wi rek moo tax a jog donc euh, monsieur le directeur nous euh, sommes très ravis aujourd'hui très contents de venir poser cet acte la au niveau de Matlaboul Fawzeyni tantôt sëñ Mamoun Gadiaga l'a dit nous recevons des cas sociaux souvent qui viennent ici qui ont des difficultés donc poser cet euh, Euh, donne un élan symbolique à travers tout ce qu'on tout ce qu'on faisait bien avant cet acte-là parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux qui viennent souvent au niveau du siège de Touba qui sont euh, Touba Kanam qui sont pris en charge mais cet acte symbolique montre notre euh, sympathie pour vous montre aussi euh, euh les projets que à travers ça vous que nous avons d'autres projets aussi tout ce qui touche la société fait partie euh, de nos exo e-, e-, exaucer les vœux de la de la de la population c'est ça notre souhait. naaw bu ñu leen nuyoo yéen ñëpp kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di ñaan euh, sëriñ Touba sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te dañ leen di euh, bërël ak cant jëmale ko ci yéen ñi nga xam ne yéen a fi taxawal tey waa Touba ci kanam ci li ngeen def jëmale ko ci hôpital bi muy fexe ba indi fi oto boo xam ne bii. maanaam hôpital bi dina ko mën a jëfandikoo buy def li ñuy wax collecte de sang maanaam buy wuti deret di ko jox askan wi ndaxte hôpital bi maanaam booy xool diwaanu Njaareem mooy hôpital bi gën a mag ci biir diwaanu Njaareem te itam euh, boo ko dee xayma lu mat juróom-benn junniy poche sang mbuusu deret dañ ko joxe at mu nekk mu jëm ci askan wi. loolu nag pour mu mën a nekk dafa laaj ay jumtukaay yu bare bare bare bëri loo xam ne bii day jëm ci wàllu oto loo xam ne itam day jëm ci wàllu maanaam. ay réactif yooy jël pour mën a test deret bi ak aussi ay collation lu jëm ci ay jumtukaay yoo xam ne bu ñu ñuy joxee deret suñ ko joxee ba noppi moom la ñuy xewlu kon nag tey bu Touba ci kanam ñëwee joxe oto bi euh, naam daanañ am ay oto yu jël pour mën a defi collecte bi waaye oto bi bu ñëwee day dolli ko ci li ñu amoon te day tax liggéey bi tam gën a yomb day tax liggéey bi gën a yemb kon nag loolu moom wax dëgg yàlla su ngeen ko defee amee nañ cant goo xam ne gi am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yomb donc ñoo ngi ñaan sama borom mi nga xam ne moo tax ngeen di liggéey ak askan wi tax ngeen di liggéey lu ngeen man ren bu déwénee ngeen mën lu ko ëpp ngeen daje ci ak ngërëmal Sëriñ Touba jërë ngeen jëf sant nañ bu baax. waaw nag def nañ ci yitte ca yaakaar naa ba mu disponible sax yàgg na wante xëy na dañ doon xaar jataay boo xam ne dana mën a manqué yëpp bopp yëpp wooyef ñu war koo jël tey teg ko ci loxo directeur mu doog koo jébbal madame Ndiaye ngir lu gën a jàppale liggéey bi ndax euh, tawat gi nag bokk na ci tawat yoo xam ne lu fi yàgg la dana tax dootuñ xaarati dana tax toujours danañ mën a am disponibilité ba lu collecte tuuti tuuti ñu mën a déplacé wu dem mën a jël loola ci anam yi nga xam ne noonu la war a mën a amee kon daal ngi xam ne euh, ci lenn la ci liggéey Touba ci kanam wante lu am njariñ la ndax euh, fi deret féete euh, mooy produit bi nga xam ne ni kenn mënu koo fabriquer waaw da koy jëlee ci nit joxaat ko ci nit rek lay mën a doon kon nag ku ciy def acte bu noble la. Mm. kon mel na ne lay jàppande liggéey bi tubaa ca kanam a ci membre tubaa ca kanam yëpp a ngi ci buñ ci boolee nag don de sang yi nga xam ne ni gis nañ ne à chaque fois ñu ngi koy organiser di ko def loolu am nañ ci yëg-yëg gu gu sori sori lool ak it ni nga xam ne noonu la ko sëñ Mamour waxee ci wàllu social bi. والتقي جسماني في خبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا حبلي بجاي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما اختاروا